waa ndaje mi ndaje mi ndaje mi ndaje euh, LDR Yeesal la euh, moom moo organiser assemblée général xale yi meeting lañ bëggoon ma ne leen nawet nag moom dama ci tàmm la def meeting parce que wóorul ñu ne kon nañ jamale mobilisation bi ñu def assemblée général commune bu nekk na fa ay délégation joge benn kaar euh, fukki nit ñetti lu nañu délégation ñëw na commune yëpp teew bu ko defee ñu waxtaan suñu biir Euh, nan moo war a nekk taxawaayu LDR Yeesal ci élection yi ñu jëm wax nañ ko waxati ko Yeesal allié lañ yu nga xam ne allié yu sincère lañ allié yu loyaux lañu ñun dañuy wër Sénégal pour xiir suñu militants yi ñu dem waxtaan ci biir Benno Bokk Yaakaar ci biir grande majorité présidentielle pour bâtir ak ñoom ay consensus pour batiir ak ñoom ay liste yu nga xam ne day nekk liste yu représentative de des intérêts des populations des différentes communes te loolu gëm nañ ne mun naa nekk bu nit ñi toogee waxtaan donc assemblée général bi boo wootee ay nit may féliciter euh, Dame Kane di féliciter Alioune Badara Tine Ablaye Diouf Modou Faye euh, Pablo et cetera en fait tous nos responsable qui sont certes jeunes mais qui sont extrêmement valeureux ñoom ñëpp ñu ngi leen di féliciter te gëm nañu ne ay militants lañ yu nga xam ne. dañuy déglu seen président dañu may cër seen seen seen parti li ñu leen wax dina ñu ci dinañu ci dinañu ci aw aw bi mooy toog waxtaan ci biir benn bokk yaakaar ba tëral lépp lu nga xam ne dina am njëriñ pour pour pour waa gox bi donc loolu moo doon solos assemblée générale ñu ñaan aussi yeneen parti ñu def ko parce que nag parti du APR donc ak ak yeesal am na yeneen parti yu nga xam ne dañu nekk ci biir coalition aussi nañu dajale seen i nit wax ak ñoom parce que wax yi tamit dafa warul nekk rek waxi nekk ku ànd ak Macky Sall ànd ak bi danga ngaa war a wax ci rajo yi wax ci télé yi ñu dégg la est-ce que réellement tu pour l'unité de la coalition et que loolu yaakaar naa ne bu ko ñëpp waxee mais kenn ku nekk dana seet lu mu métti métti métti gars yi daañu seet du ñu ànde pour mën a gagner parce que ñii jàkkaarloog ñun euh, dañuy xaar ñu diviser wu rek ñu jëm ci prox ndoll mais bu ñun defee benn dànk du ñu gis biti ñoom leer na leen c'est-à-dire que wax wax wax jee fi nekk rek parce que ñun opposition bi ñu amal affaire wax. réseaux sociaux saaga wax lu bon toj loolu rek sos loolu rek lañ fi nekkee nekk wuñ fi wax lu nga xam ne mën a dugg ci bopp nit ñi te bu ñu jàpp ne Sénégalais yi dañoo dof Sénégalais yi dofuñu demuñu bay bëgg dof su wootee jotee xam nañ bu baax li ñuy tànn ak ki ñuy tànn ñun kay nañu wut coalition lu leen neex nañu àndee lu leen neex mais ñun moom bu ñu nekkee benn bokk ndey bokk bay kenn ci ñoom mënuñoo dékku te bu ñu paree 23 janvier da ngeen gis lii ma leen wax Macky Sall dina am ndam Benno Bokk Yaakaar dina am ndam sur toute l'étendue du territoire national. ndax da ngaa seetlu fii ci Diourbel dafa dafa am féewal. man seetlu fi dara euh, li ma xam daal mooy euh, que ñu jub élection Massamba ne bëgg na demba ne bëgg na c'est normal parce que ambition moom kenn mënu ko rey ci ci ci ci biir nit waaye nag li ma gëm mooy. le moment venu ñoom ñëpp daañu toog daañu waxtaan daañu samp lu nga xam ne daañu xam ne lii mooy joxuñu président Macky Sall bis bu président Macky Sall joxuñee rek récréation bi terminé te loolu euh, ñun ñëpp nangul nañ ko ko parce que ñun ñoo nangu mu nekk suñu jiitu suñu jiitu coalition fii ci Diourbel jàmm laa fi fekk salaam laa fi fekk invité nañu ñëpp ñëpp ñëw nañu ñu mënul ñëw euh, ngant yu wóor moo leen moo leen téye mais nag daañu beral cant le ministre Dame Diop parce que ñun lii lañ bëgg aussi ci responsable responsable APR du secteur dafay am ouverture d'esprit dafay jéem a boole ñëpp parce que loolu la leen président Macky Sall sant jéem a boole ñëpp jéem a associé ñëpp jéem a waxtaan ak ñëpp jéem a jox cër ñëpp ñëw gi mu ñëw en tant que ministre de la République premier responsable de la coalition Benno Bokk Yaakaar teew ko suñu assemblée générale mais daf ñu jox cër daf ñu jox euh, daf ñu fulal daf ñu ñu daf ñu faydaal yaakaar naa ñun tamit décevoiruñ ko parce que bi mu ñëwee fekk fi mocce saal fekk fi ñetti nit fekk na fi Jurbel parce que kenn ko koo xam Jurbel te ñi fi nekk ñëpp kenn jógewu ci Darou Moussi kenn jógewu ci Kébémer ñëpp ci département Diourbel lañ dëkk donc moom tamit gis na li ci des nag ci kanam la nañ bokk ndey nañ bokk da bay en tout cas c'est un ami le ministre c'est un frère il la confiance du président de la République qu'il a nommé euh, comme membre du du gouvernement c'est le seul ministre de la de la de la région mais le jour J le président dira et quand il dira, ben, tout le monde suivra.